mu jox ab junni ku nekk soo xëyee nga sant yàlla te mosale ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow kiy joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne moom lañ leen wateel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni su ko defee ki yor ay junni junni ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee ab doom aadama war te mel ni nañu alxuraan naan waru leen ko mel fa ama al insaanu ida mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa ama ida mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan yàlla mu ne kallaa noonu moom bu leen ko mel yàlla neen wa arsalnaa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi maanaam mu nekk kuuyal niir yi bi maana miir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du taw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ab taw li koy def nag yàlla ne na ariyaaxa mooy ngelaw yi ku koy yebal mu ne waa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal naka noonu garab yi it garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen garab gu góor gi nekk Dakar gu jigéen ga nekk Pout li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk dakaar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaaraka wa taala nee na man mii maa yebal ngelaw ngelaw def ko da ngay gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor garab gu góor gi nekk fii ci dakaar tóor tóor seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko tax a meññ du am ay doom waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko mu daal di jël ak ayam la bu fégalee nga gis mu daal di gëmm la mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ la ndax borom këram ziari si woon na ko waaye ka leen ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy eh, yemb yi mooy saar bi ci tegee incha allah yemb yemb yi ñëw ca def ca seeni suukar rek ñoom seen yooyu garabu doon ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab suukar sab loolu tabaaraka wa taala nee na man maa koy def xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko pikiir pour mu saf suukar wala ñuy jël ci usine bi di ca toqal pour muy saf suukar dañuy watt rek lekk mu neex noonu la ko defe wa taala defe wa la waa lawaaqiha moom rek moo ko man moom jalla jalaaluhu wa azza kamalu ndax li nekk ci Sénégal gi ci mango ñun suñu usine bi mënu koo suukar tabaaraka fa anzal naa ñu wàccee mina samaa yi jóge asamaan maa an ab taw bi niir demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw fa asqaynaakumu ñu màndal leen ko fa asqaynaa ñu màndal kum ma fa asqaynaakumu ñetti damir ñoo fi ànd ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy màndalaate kum koy màndal ñun lum ñuy màndal hu ndox ma wa ma antum nekku leen bi xaasinina lahu di mën a denc ndox ma maanaam xasain yi nga xam ne ca la ñuy denc yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox dangay seet rek bi at mii duggee ak re ak tey 98 ak tey li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc wala soo nattoon bët bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan ana ban ndab la ko doomu aadama mën a denc amul doomu aadama bu nekk li ngay sangoo li ngay naan li ngay jàppe amut ndab lu ko mën a denc yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa ma antum lahu bi xaasinin du yéen yéen a ko mën a denc ñun boo fi dencem ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox bu commencé forox commencé def ay laraxat commencé def ay verte verte nga daal di tàmbalee seexul ndox mu mi doo ko nangoo naan waaye jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom fi mu ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox dama ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc bu ndox génnee ci boppam boo tibaatee suuf xëpp ca dong ndox daal di commencé nax tàmbalee salte te foofa la ko denc moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu ne kon bu ngeen seetloo lii ma leen defal dangeen ma teg fi ngeen war a teg ñoo ngi ci suratu xijri ba tey aaya ñaar ko ak ñaar yàlla nee na wa innaa te ñun yàlla la naxnu waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundalu ko dund wa naa la naxnu nux yi yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wér lay doon bu ne woon wa inna nahnu nuhyi arab ji wér doon bu ne woon wa inna nuhyi arab ji wér lay doon mu boole wa inna ak la ak nahnu door ne yi li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal yàlla ku dund moom képp moo la dundal ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo mu di noyyi gi ñuy noyyi ku dund yàlla la dundal war nu niitu ñooy rey it ku dee yàlla nee na ku dee du kenn du say mbokk du lenn du fenn man mii maa la rey man yàlla ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg nit dee ñu jiiñ ko keneen bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne dëmmuyee ko lekk dëmmuyee ko rey wala diwa ko liggéey yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit dee def mel ni mbir dee ca nit def ko ca déewu ca gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba waaye gis ngeen ku daanu cib teen génn na cocc dara jotu ko gis ngeen kuñ fetal mu dee waaye gis ngeen kuñ fetal dara jotu ko kon nit mën naa def nag sababu luy rey moo tax ci def sababu liy rey bokkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey yàlla nee na wa inna li wóor daal mooy ñun yàlla la nax nu wóor na ne ñun nux yi ñooy dundal ku dund wanu miitu ñooy rey it ku dee wa nax nu te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna ñooy donn li ngeen bàyyi ginnaaw wa naxnu alwaarisuun narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun yàlla nee na yéen ngi dund yéen a ngi dee ku dee nag say mbokk donn sa alal ku dee say mbokk doon sa alal sa mbokk yooyee ku ca dee ay mbokkam doon na alalam ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñépp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon na ko jalla jalaaluhu wa azza kamaalu suñu étage yeeg suñu oto yeeg suñu kër yeeg suñu semis yeeg suñu dàll yeeg machine ñaw yeeg lépp subhanahu wa ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka wa ne wa nahnu te ñun alwaarisuuna ñoo koy doon gi mu koy doon nag bokkut ak ñun doon gi ñuy doon ndax ñun bu ñu nee dañ koy jëfandikoo lenn lu ñu dugg ca waaye jàlla jëlaaluhu moom doon gi mu koy doon mooy moo ñu mujj ginnaaw lu lay tekki yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax wala qad alim naa xam nañu al mustaqdamina ñu njëkk a dee minkum ci yéen allahu akbar ñu njëkk faatu ci ñun yàlla nee na xam nañ wala qad alim naa ci wóor na leen ne xam nañu almustaaxiri nañ ñooy mujj a dee ñu ñépp yàlla xam na leen ibnu abbas mu ne almustaqdamuuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yati ila yawmi alqiyaamati boo demee ci tabar yi nee na firim boobu ibnu abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee boobu la tànn ba demee ca téere bu ñuy wax albaxru benn tafsir la jukkib juróom euh, xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam euh, ibni abbas boobu nekk ngeen bal ma mujahid it nee na benn sëriñ la nee na al mustaqdamuun mooy al umamu saabiqa wal mustaaxiruun ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ñun jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu mujj ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ña njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj yàlla xam na leen fii it bu doon doomu aadama day wax ne ñu njëkk faatu yàlla xam na leen ñu mujj faatu dana leen xam bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla def ne walaqad alimna al mustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqir xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem kepp du yokk du wàññeeku waaye bu doon ñun ni nga xamee ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñii mujj a dee yow danga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen yàlla moom du jëfandiku fii walaqad alamu danaa xam dee day wax ne xam naa ndax xam na ko ba noppi wa inna rabbaka te sa boroom huwa moom rek mooy ki nga xam ne yaxshuruhum dana leen man dajale ñoom ñépp ñu njëkk a faatu ba ñu mujj faatu ñépp la yàlla tabaaraka wa di dajale ñoom ñépp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñépp dañu fa xaj ñu taxaw ñun ñépp def yaram mi neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñu lalal ay sajaada amul ay sées loolu sax war ngeen koo gëm ndax mosu leen a gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu yóbbaaleel ko ay sées mosu leen koo gis kenn du yóbbaale dara ak mbajj man mosumaa gis ku yóbbaaleeg mbajj mosumaa gis ku yóbbaale sées li may tiim daal mooy juróom-ñaari mètre percal te juróom-ñaari mètre percal góor ga Ibra yal na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ku ko bàyyee woon ci adduna si dong balaa déwén mu rafle waxuma laa nag ñu solaale ko ko ci biir suuf moo ku mën a jàngale la tabarkàlla yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci penc moomee ak yaa mu ne nag yépp daat ñuy tàmbalee atte ndax innahu yàlla xakiim ku xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko aliim ku xam la ba ni muy doxale mbir yi moom subhaanahu wa moom rekk moo ko xam mu ñëw nag moom tuba subhaanahu wa nettilee tiñu diggante iblis ak aadama alquran saar boo dem bu ñu ko nettaliwul boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettaliwaat ñu ko muy diggante seytaane ak insaan fii dafay wone bu baax làmb ja nga xam ne fa la seytaane gemboo ak làmb ja nga xam ne fa la insaan gemboo ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn làmb ji ñuy wax àdduna yàlla nag nee na yéen ku ñëw defet dem sa war a doomu aadama ci benn match la ñu nekk match boo xam ne yàlla nee na ku ñëw defet dem sa war a kon nag ñun amuñu sañ-sañu def defet te nag benn adversaire rek la ñu am moom mooy seytaane waaye nag ku mën a fubal la moom seytaane am na ay défenseurs yu foor ak i gardien it moom seytaane ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la moom seytaane moom ab défenseur la bànneex défenseur la duniyaa muy àddina bi ab défenseur la kaaya nag daraja moo fa nekk kaaya mooy góol bi daraja ñeenti ñii di défenseurs yi ak juróomeel bii di di di góol bi yow soo bëggee dugal te nanguwuloo nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taq suuf nangu nga ku la padd bëgg nga penalti soo nekkul ci yooyu doo dugg doo dugal moo tax mu tasawufoon yi dañuy wax ne foog nga mën a dribbler al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nga door a mën a dugal booy tàmbalee dugal nag al muhaasaba nga tàmbalee régler bii yi ngay am ak bii ngay encaissé waaye boo demee defet dem sa war yàlla nee na déglu leen ma ma nettali leen fu nga xam ne fa la doomu aadama gembo wala qad xalaq naa bind nañu al insaana nit min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleng-keleng yi ban buy keleng-keleng yi fu mu jóge mu ne min xama ci ban boo xam ne masnuunin bu ñu lakk la ba mu ñuul maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu mu wow ba mel ni liñ tabax ci ban bi boo ko fëggee sa baaraam kàddu googu muy joxe ban bu wow boobu la yàlla tabaaraka wa taala bindu doomu aadama kon doomu adama ci làmbu jooju la la gemboo wa laqad xalaqnaa bind nañu al insaana nit min salsaalin min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmau lahu salsala boo ko boo ko fëggee da ngay dégg sawt isaa nuqira naka noonu min xama in ban boobu nag ñu ngi jóge min xama in ci ban boo xam ne bi masnuun aswad mutaxayir dafa ñuul ba pare te dafay soppi ko alhamdulillah suñu borom tabaraka wa taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan gembo muy min salsaalin min xama in masnuun wal jaan jinne ji nag jinne jan jinne ji mooy iblis moom xalaqnaahu ñu nga ko bind min qablu bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moo mag insaan jinne moo tax fu yàllay waxe ci alquran mbaa boog li cëpp day jiital jinne door caa teg insaan wa maa xalaqtul jinna wal insa jinne moo mag insaan te ku la mag ëpp lay sagar sagar yooyu nag nga xam ne moom lañu ñu ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu man la aouzu billahi mina shaytaani rajim kon wal na jinne ja nag nga ne ko jinne jan mu ne iblis laa bëgg a wax xalaq naahu ñu ngi ko bind min qablu lu jiitu ñuy bind insaan fu ñu ko bind mu ne min naari samoom ci naaru samoom naaru samoom mooy sawara woo xam ne samaam yi na ci doomu aadama muy bën bënn yi na ci aw yaramam te kawar yi di ci jaar suy lakk nit foofu la sawara wi dugg sawara aadama duggee ci biir sa yaram bi fi fi kawar yi di génne bën bën yooyu bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk ndax yàlla xam ne ni ab der fi la métit di nekk kon nag dégg ngeen foofu la seytaane gemboo min naari sa moom kee gemboo fële ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji wala boog match boo xam ne bii bu mu ko tuddee baax na ñoom ñaar ñoo ko séq yàlla nag imsaan la faral te mooy arbitré combat bi léegi nag koo séen mu daanu da ngay dégg mu ne seytaane moo bari doole yàlla nee na seytaane inna kayda seytaani kaana daifa seytaane bariwul doole pexem seytaane bariwul doole pexem jigéen moo bari doole waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaane moo bari doole dangay gis ci fubalkat yi ku wéq bal bi mu jàdd rek aw aw dàllam la koy jiiñ nga seen muy defaraat aw dàll te fekk na dàll wa defu ko ko moom la tànkam dëng waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf lu dal waaye rek ñu ne seytaane lu dal waaye rek ñu ne ko muñal lu dal waaye rek ñu ne ko yàllaa ko dogal loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu euh, al min salsaal min amayin masnuun al jaan min xablu min naari samum ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar yàlla mu ne wa fàttalikul iskero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa boroom wax na lil malaikati malaaka yépp malaaka yépp la yàlla dajale dajale leen ci benn réunion boo xam ne daleen doon jox ay xibaar xibaar ya mooy inni man yàlla xaalixun kuy bind la basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam bii dafa am kaddu ban boobu nag min xama in mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas noonin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul malaaka ne ko waaw muñ la fa isaa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cër ya tolloo mu nekk muctadil mat wa nafaxtu fiihi ma wal ca min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daal di rot ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñépp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daat nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux ba mu ko defee daane malaaka ya noppi naa ci de fa sajada al malaikatu malaaka ya sujud kulluhum ñoom ñépp ajmaun ñoom ñépp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki na ñoom ñëpp lay tekki kon na dafa ñëw nekk tawkiid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokkuñu baatu fedd li loolu lay ñoom ñëpp ñëw nañ ba noonu ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii ko waxee nit ñi nañ ciy dégg ne kenn desu loolu mooy tawkiid arab da koy faral di jëfandikoo waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fànn kulluhum ajmaun ba yow sa xel nee na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fallaska iblis du turu iblis waaye al mublisu mooy ku kutus olof bu nee ku kutus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñépp yi jëf fayu jot ñépp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow dangaa kutus yomal xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci àdduna si dañu fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen xas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yemal xiyaam nit ñu séddoo seeni yiw ñu dem ak yi neen loolu mooy ku ko tos salawaatullaahi wa salaamu alayhi mas na ko saaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun moo ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa waaye soo déggee ni alxuraan waxee léegi fa sajada almalaikatu kulluhum ajmaun daan ne ilaa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi danga naan konkat kat ci malaaka yi la bokk ulamaa yi ne la déedéet al istithna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo istisna bu daggatoo bukkut ak istisna bu jokkaloo ci làkku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis ci ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokk ca ndax iblis moom xalqun aaxar xayral malaayika boo demee ci euh, alxasanul basri dafay wax ne wallahi maa kaana iblis min al malaaikata tarfata ayn mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka mu ne iblis moom giñ ci yàlla musta nekk malaaka ba demee ci benn téere boo xam ne docteur Ali nii moo ko liggéey mu tudde ko bu nubuwatu wal anbiya ci xëtum téeméer ak juróom wala ak ñaar fukk juróom-ñett boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi xam nga ni iblis dañ ko bind min naarin ci a ni ma ko waxee léegi malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci lën euh, sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi beneen lay bi malaaka yi laa yaasuna allah ma amarahum duñ mooy yàlla iblis fii aba wa mooy na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma af saajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ ko nag rëy moo ko ko yóbbee ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoiru malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñoo sujjóotal kii maanaam loolu benn kañaan la goo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole la ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am kañaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg mu naan suñu mbooloo mi lay jariñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def Iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo ma mbooloo ma yépp walbatiku di ko sujjóotal moom mu ne kii nag moom du sujjóot daal di lànk laanatullaahi alayhi daal di taxaw fële yàlla tabaaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa laka yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma saajidina ànd ak ñuy sujjóot suñu borom ko bëri yërmande la fii bu iblis ne woon daf maa rëcc mën naa mu baal ko dama juum mën naa am mu baal ko waaye déglu leen rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujootal li basharin ci mbindeef moo xam ne xalaxtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kàddu min xama in masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjóotal ay ban te borom ban bi moo ne ko sujjóotalal ban bi waaw borom ban bi moo ne ko sujjóotalal ban bi su boobaa bu dul sujjóotal ban bi du gis ne ban bi lay sujjóotal waaye borom ban bi ko sant ne sujjóotalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de lañu gis mooy bi yàlla santaane santaane yàlla la ñuy gis ca lañuy ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gisuloo ci sëy jigéen da gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii gis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca ngay yem waaye yow ku góor kiit booy sëyeeg ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen say weer waaye bu ci ku ne yëgee li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggale koo mukk te du ngeen xuloo lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaaraka taala di nettali jaar-jaar bi nga xam ne fi la seytaane jaar ak suñ maam aadama moom daal nee na lam akun nekkuma li asjuda li basharin di sujootal mbindeef moo xam ne xalaqtuhu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋi boo ko fëggee min xama im masnuun ci ban boo xam ne bi dafa lakk ba soppi loolu la wax xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn ci aljanna ji walla min ci asamaan sii fii ngeen koy waxe fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga ku ñu dàq nga ci yërmande yàlla loolu la ko yàlla faye ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko acc yàlla nag ñaar yooyu defal ak bul def daf ne woon suñ maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñ maam aadama def na ko bul def mooy bul lekk ci garab bi iblis def na ko defal mooy su jóotal mbokk yi fi mu nekk bi bi mu walbatikoo ci adduna si fi mu bul def mu gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma anaa fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee yooyu waaye bu ñu nee bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo dégg amul na ma yàlla baal ñu <laughs> ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo dégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom daf ne woon suñu maam Adama fakulaa minha ragadan xaysu chituma wala taqaraba haasi shajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi waaye léegi gis nga ko la nit ñi ni ñu naqaree tere suñ maam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxruj minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la séen ku law xeer rajama mooy sànni na ko xeer a rajmu mooy kuñ sabbi xeer moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana ay xeer loolu mooy rajim wa inna te nag li mu wan a waat mooy ka wàcc na ci yow